jërëjëf borom Touba jërëjëf maam Cheikh Anta jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babil Mouridine sama ñetti modèle la waaw sëñ Touba Cheikh Anta Cheikh Ibra ku ci jàpp moom doo ñàkk dara waaw sëñ Touba Cheikh Anta Cheikh Ibra ku ci jàpp doo ñàkk dara loolo yoon wi ku ne bëgg nga xam-xam ku ne bëgg nga wërsëg te kenn ku ne ci ñun bu amul taalibi jéppi boppam mooy yoon wi waaw waaw kon mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu xalis bi sëriñ si di Mbàkke di ko ñaanal yéen bi yàlla na woyof bu naree diis yàlla nañ ko ànd ak moom yenn ko ba mu bañ cee yëg dara te incha dara du ci diis ñun moom ay gaynde lañu waaw man gaynde Daaru Salaam la waaw touche pas à mon waaw man kenn laal sama yëf kon nag tey jii dañu woote woon dajale bokk taalibe yi ak njaboot bi ci ndigalu sëñ bi wax ne ñu munta ñàkk ñu wone suñu bopp ci màggal gi ne xam naa ne Daaru Salaam yépp ba mu daj fii rek la lii am kenn mënut yëngu parce que affaire bi fii la kenn mënul yëngu waaw kenn du yëngu fii rek la ñuy yëngalee waaw fii la sëñ bi nekk waaw ñépp ko war a xam dafa jot nag ndax man dama am lu may yëg ci sëñ gaawaan te dama ko bëgg a def mu nekk déclaration solennelle ndax sëñ gaawaan yoon wi yabu ko yoonu murit yabu ko sëñ Saliou mu ngi koy wax sànq ndimbal fu nekk jóge na ci moom taxawu ko ay nit taxawu ko ay famille ba tudd borom dërëm ak ngërëm te yor dërëm ba pare am ngërëm yombul saa saa nga am dërëm beew saa saa nga am ngërëm fuuy waaw moom nag million ak dërëm la yemale woon yére yu lafit yi mu daan sol moom borom gaawaan du doon wone sëriñ Touba rek la doon wone dafa am bis mu sol manto bu rafet ñëw njaareem fekk si Serigne Touba bi mu ñëwee dugg si fekk mu am doom bu bari bu ne ci biir néeg bi sëriñ bi ne dongo yi buub leen doom gi balaa muy naaw sëñ gaawaan dugg si dégg ne buub leen doom gi balaa muy naaw manto bu rafet ba mu yor te mu jëndee ko Maroc mu ëmb ci doom bi génn xëpp ko ci biti ñooñu ñëw na sëñ bi andi doom bi mu ne leen Cheikh jël na ko mu ne xam nga lu ma leen di misaal dama leen bëgg a wax ne Cheikh bi yëreem yu rafet yi muy sol ngeen def ni dina jublu àdduna man rek lay wane bëgg ñëpp bëgg ma xam ni lu ma defar ku ko gis bëgg ko daaru salaam gi nag bokk na ci li nga xam ni delloo na ginnaaw ndax waroon na weesu fii waaye sëñ Gawane nee na dafa mer ma ne ko maam lu la merloo mu ne ma joxuñu ma sama worma ma ne ko ah naka lañu ñu xottee sa worma mu ne ma sama béréb bii ma tëdd ñu jal koy néew wërale ma ko bu ma fi nekkoon kenn ñemewu toog ak man ci basak ndax bërëb bu sëñ kenn ñeme na faa dugal kenn ndax béyti maam na kenn ñeme na faa dugal kenn nee na loolu laa mer joxuñu ma sama cër joxuñu ma sama cër moo tax ñuy futtiku fa yéene wax dëkk ñoom dañoo xamul sëñ gaawaan man mii dem sëñ Babacar xam naa kan mooy sëñ gaawaan man waaw bu baax a baax a baax a baax di ñaan xalif général de mourides sëriñ mun Muntaxa mooy sëñ Touba. moom moo war a introniser moom moo war a yëkkati valider xalifa maam Cheikh Anta sëñ Ibra Ndar bi muy nekk xalifa sëñ Abdou Lahad moo ñëw fekk ko gaawaat samp ko na ñëpp dañ topp ci moom kon sëñ Muntaxa am na responsabilité bu mag ndax mooy sëñ Tuubaa kër bu amee lëj-lëj dangay ngay woj ñu ko lëjal nga toog waxtaan ak ñoom sëñ bi man joxuma la ndigal yaay sama sëriñ yaay sama sëriñ tubaa waaye li ma yëg rek lay wax li ma yëg rek lay wax di ñaan yàlla dëkk bii ku ne xam na ni buñ ne màggal Daaru Salaam ñëpp mbubboo sëriñ gaawaan def seen communiqué woote sëñ gaawaan buñ demee ba ci biir mbubboo seen waajur mënu noonu nax sëñ bi man dëgg rekk ma yàq waaw man dëgg ma yàq bu ma doon dee dama koy wax waaw dëkk bii dañ ko war a dundal sëñ gaawaan ëpp na lii sëñ gaawaan waroon nañu bu ñu duggee ci dëkk bi mu mel ni panaan kon ñu ngi woo mbooleem koo xam ni sa waajur sëriñ gaawaan moo ko jur kër dañ koy pencoo kër dañ koy waxtaane nañu bàyyi xeebante bi nañu bàyyi maa la gën a jegeñ sëñ tubaa sëñ tubaa xamul ku ko gën a jegeñ sëñ tubaa ku koy liggéeyal la xam waaw ku ko liggéeyal la xam ku ko liggéeyal mu fay la waaw te loolu rek moo am ci yoon wi may mën nag ragaluma parce que man du ma ragal waaw man du ragal de waaw man góor yàlla la waaw te li may wax ku ko dégg dinga xam ni dëgg rek lay wax te yàlla rek moo tax may wax li may wax watawaasaw bil xaq watawaasaw bil sabr foofu rek laa ko teg waaw dëkk bi dëkk bi borom gaaw na ko moom dëkk bi borom gaawaan la ko sëñ Tuubaa rafaatale mais da nga fiy dégg ay wax yoo xam ni dafa doy waar dafa doy waar yooyu dañ ko war a wax góom bi dañ ko war a ragg ba mu nàcc ngir mu mën a wér parce que dafa am góom bu fi am te dafa war a deñ te man mi bokk naa ci xeexkat yi nga xam ni dama koy xeex parce que man sëñ gaawaan rek laa bëgg bëgguma leneen su ma sañoon lépp may baax ñépp may baax ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax di ñaanal képp koo xam ne nag yaa ngi yeewoo Daaru Salaam na xam ni sëñ gaawaan ngeen am dëkk bii bay sëñ gaawaan di wodd Mbàkke ba péncum Daaru Salaam di teral Sëriñ Tuubaa Sëriñ gaawaan la seet si woon Sëriñ gaawaan la fi fekk si woon sëriñ gaawaan moo ko teraloon sëriñ gaawaan la rafaatale woon dëkk bi kon dëkk bii ni ko Ibataal waxee Daaru la ak gaawaan te yaatu lool te sëñ gaawaan du ku ñuy fontoo ku ñuy tarbiya la léegi nag sëñ gaawaan a ngi nii dugg na kër sëñ Ibrahima Kendar mu neex leen mu naqari leen dugg na kër sëñ Ibrahima Kenda waaw Baye Fall bee ko waaw maa ngi fi nag di gaynde gi waaw waaw man maay gaynde gi acca nag ñu xool rek waaw ñu xool rek waaw ñu xool rek waaw kon mbokk yi Sëñ Saliou éminent conférencier avec beaucoup de talent ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk xam-xam bi bu baax a baax ndax ay rakk lañu moom ak ibat sëñ ibataal ni mu ko waxee rek ñun ñëpp benn lañu ndax wax wax mbaaxu nit du yàq ci sa mbaax dara fekk sa mag jox ko cëram du yàq ci sa cër dara waaye dañ la ci gën a respecté te man kii jàppewuma ko mag bàyyi laa ko jàppe loolu moo ne ci man te dëgg la ci man kon dañ koy ñaanal yàlla fekk fanam di digal mbokki taalibe yépp nag nangeen ngeen laxasaayu def garde fou xam ni kër gi lañu am sëñ gaawaan lañu am dañu wax ni ñooy baay faalu borom gaawaan yéen ngeen nekk ay baay faalu borom gaawaan kenn du fi yebee boroom gaawaan bu ko kenn nangu waaw loolu rek laa bëggoon sànni comme message di ko yëgal autorité politique yi autorité administrative yi di ko yëgal gouverneur di ko yëgal préfet nañ jaarale mbir mi ci yoon te bàyyi politik nañuy def dëgg te bàyyi par parloo loolu rek laa bëggoon wax di ñaanal télévision yi fi ñëw yëpp yendu nañ fi wax dëgg yàlla couvrir événement bi ak site internet yi fi ñëw yëpp wax dëgg yàlla gis ngeen caméra yi nu mu bare ñoom ñëpp ñu ñëw fi sonn ngir rek fekkee suñu première cérémonie officielle boo xam ni en famille lañ ko def ngir Covid bi moo tax waaye ñu wanale leen ak ki nga xam ni mooy borom gaawaan di sëñ di Mbacke mi ngeen ñaanal ko wax ne yàlla na fi yàgg te wér waaw ñu ngi ñaanal nag suñu mag ji dawlu woon muy sëriñ Mamoun Mbacke tudd nañ ko fi wax dëgg yàlla wéetal nañu trop mënuñ saa wax ci moom mënuñu ko wax dëgg yàlla day sori